am mbégte ci ñëw ci bis bu tedd bi ñu daje tey muy bisub lislaam di bisub yoonu murit di bisub képp ku bëgg lu baax di bis boo xam ne rek euh, ñu ngi koy amalee fii ci Mbàkke Bawol ci kër sëñ Alaaj Baara di koy amal kenn ci ak njabootam di sëñ Galas Amina moo ko ay waa këram mbokki taalib yi nga xam ne ñoom lay àndal di liggéeyal sëriñ bi muy bis boo xam ne baaxoo nañ ko def xëy na at yi yëpp di bis boo xam ne rek dañ ciy daje di ci jokk ak mbokk ci seen biir yëkkati ay bernde di ko jox mbokki jullit yëpp muy jëf ju màgg ju am solo joo xam ne jëf ci am na solo waxtu wi koy defee am na solo ni koy defee am na solo euh, jëf ju am solo la ndax euh, yonent bi sallallahu dafa wax ne bu nit wooree ba ngoon nga jox ko mu ndogu da nga am yool bu toll ne bi mu am te yow doo loolu du ko yàq dara ci la muy am moom mu man fattara saay man kaana lahu mislu ajrihi képp koo xam daa woor ba ngoon nga jox ko mu dogu da am lu toll ne la mu am ci ay tuyaaba te yow doo ko yàqal dara ci ca la muy am mm-hmm. loolu kon jëf ji fu ñu ko mën a defee rek jëf ju am solo la ñu def ko it ci ci fukki fan yi mujj ci weeru koor ndax ngeen ne yéen sallam dafa wax ne weeru koor fukki fan yi ci yi ci mujj mooy ci gën a màgg donte lépp lu màgg la ba ci laylatul xadar di guddi gi nga xam ne moom la suñ borom jagleel xeetu yoonu bi sallam nga xam ne ñoom seeni fan du gudd mm-hmm. xeetu yonent bi sallam li ci ëpp ci li ñuy dund duñu weesu ay 75 ans mm-hmm. te xeetu njëkk ya dañ daan dund ay junniyaat ba lu ko jege biñ ñëwee nag suñu borom bokk ci lim leen baaxee mooy mu may leen maanaam li ñuy wax coefficient ci suñu examen yi nga xam ne day gàtt waaye dañ koy mën a multiplier mu gën a bari mu defal leen kon guddi koo xam ne da leen wax ne leen képp ku ci jaam yàlla lam ci judd lam ciy jëlee dana ëpp yool bi mu mën a jëlee ci bu jaamoon yàlla ëpp juróom-ñetti ak lu topp muy laylatul xadir xayru min alfi shahr loolu kon di ci ci xéewal nga xam ne koo baaxee xeet yu sallam guddi googu dafa sax ne ci fukki fan yi mujj ci weeru koor la nekk nga xam ne yéen sallam moo ne woon na ngeen ko wër ci fukk yu mujj yi ne na ngeen ko wër ci bis yi nga xam ne dafa tool mooy ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom muy wéy euh, donte fukk yëpp rek lu baax la ku ko màng rek day xam ne jëf na jëf ju baax day xam ne jëf na euh, laytu xadda du ko rëcc kon loolu ci baax ci xewal yi mu baaxee xeet yéen sallam ci la bokk kon jëf ji bu ñu ko defee ci fukki fan yu mujj yooyu rek mooy jëf nañ lu am solo te xam ne lislaam rek lislaam ci boppam yéen sallam laajoon nañ ko jan lislaam moo gën mu ne ngay joxe ñam ak koo xam ak koo xamul boo ko noomee nga nuyu ayul islaami xayr mu ne an tutima taama wa taqara asalaama ala man arafta wa man lam taarif kon euh, jëf ji fi liñ fi dajee lii lépp weesuwut jokk ak mbokk weesuwut joxe ay ñam muy jëf ju rëy joo xam ne it sëñ Moustapha mu sëñ laaj baara ñu ko ñaar mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom mii xalifab sëñ baala ñëw na fekke ko euh, njaboot gépp ñëw dajee fi am di jàmm yi ñëw fi mbokk yi ci dëkk bi yëpp ñëw kon leneen amaat ci muy jokk mbokk koo xam ne xëy na waxtu xat na jamono xat na ba nit ñi amuñu jot kon ku leen dimbale ba wutal leen benn cadre boo xam ne mën nañ cee daje jokk ci seen mbokk bëri nañu ñu fi daje tey ñoo xam ne gëj nañoo gisee baa bu ñu jee gisee gëj nañoo gisee ndoo loolu kon jëf ju am solo la. mbégte bu baax a baax di gën a santaat yàlla ba ñu may ñu toogaat fii nii di ko santaat di wax am nañ mbégte bu baax a baax a baax ci bis bi ñu doon defal suñuy waajur muy Cheikh Mouhamadou Bara Fallilou di ko ci sàkkul ay ñaan. yàlla def nañu jàmm ko si jàmm ak salaam di gën doole sant yàlla baax nag di gën sant tamit mbokk taalibe yi ak xarit yeeg ànd jàmme ak soppe yi ñëpp ndax bis bi bañ ko tëralee ba tey kenn ku ne bàyyi nga sa yitte sa li lépp nga ñëw taxaw si ngir nu bis bi jàllee rek bis bi jàll si jàmm ak salaam di sant mbokk yi bu baax nag di ko jiital si cant gi sëñ caacoo mii sëñ Abdoulahat sëñ Pamaas mii ak gars yi ñoom dana ñëpp daal sant nañu képp koo xam ne jàppoon ne dañ la fàtt waaye fàttewuñu la sax nag ndax waaye sant nañ ñëpp daal ku si yëpp ku sant nañ la di beral tamit ak cant ku ñuy wax euh, président Badiane dëgg yàlla moom suñu xarit la suñu lépp la lépp luñ nekk na mang ca diñ si jàppale bu baax a baax baax di ko ñaanal suñu borom lépp loo xam ni bëgg na ko si dëkk bi rek yàlla may ko ni ko bëggee di ñaanal tamit suñu xarit bi suñu Abdoul Ahad mi tamit li mu yéene ci dëkk bi yàlla yàlla ko meegale ko ñoom sëñ Mbacke Faye ak ay Papis Diop ñoom ñëpp rek ak képp koo xam ne jeune nga nekk ci dëkk bi te Mbacke ñor la rek ñu ngi lay ñaanal suñu borom li nga bëgg liggéey si dëkk bi yàlla dafa leen nga ko bëggee di wax rek li may wax ne yéen yéen yeneen jeunes yéen ay avenir ëllëg dëkk bi ñoom ñi ñoo war a jàpp bi tey dëkk bi seen loxo lay mujj ëllëg tamit ñoom nañ gën a xam loolu gën a taxaw rek gën a mànkoo gën a nekk benn xam ne Mbacke suñu Mbacke la ñu ñoo ko moom duñu waruñu see xaar kenn ñu ñëw ñoo war a taxaw jàppandoo dóorandoo xàccandoo di dóorandoo di jàppale pour Mbàkke jëm sa kanam ñu ngi sant nag bu baax a baax a baax di sant mbokk taale bi di am tamit euh, bëggoon di sàkku ñaan bi am suñu benn xarit boo xam ni dafa nekkoon ñun si élevage bi di ñu wax Omar Sow yàlla da ko jël bi rek démb mu mu faatuñ ma bëggoon nañu ñaan ko bu baax a baax si ndogu yi lépp lu fi tiyaaw yàlla ko suñu borom jox ba mu dool sëkk sëkk sëkk sëkk si barke Seydina ndax suñu xarit la woon te ci yoonu Serigne boobu ndax ku ne xam ne màggal Tuubaa bu daan ñëw lu naan def daj sëñ Muntaxaa loolu rek la indil te jëf yooyu mu daan yëpp da ko doon jëf ngir jëmmi sëñ Tuubaa Omar foo ko fekk daan ree rek ñu ngi ñaan kon suñu borom li mu doon defal sëñ Tuubaa lépp yàlla na ko fa mu nekk fa mu fekk te am nañ si yaakaar baax a baax ndax sëñ sëñ Muntaxaa gërëm na ko sant na ko kon nag fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jógee muy Omar Sow dama bëgg ñëpp nga ñaanal ko sëñ sëñ Saliou sëñ Mamour nga ñaanal ko baax waaju baax la woon ñaanal képp koo xam ni tamit nekkoon nga fi te nekk rek suñu borom may la sa yóbbu la sa aljana yi gën a kowe yi gën a ñaan suñuy waajur rek ndax lii lépp ñoo ñu si nàmpatal ndax mën nañoo nekk ci leen waaye heure alhamdulilah di sant nañ yàlla ba ñu xiiree ci lii te sant nañ ci mooy li def nii li may wax gars yi neen Sëñ yoonam bi amul tànk ginnaaw tànk nam rek ndax loo def ren rek bu doon ni da nga def lu ëpp ndax fii tey suba rek maa ngi wax ak caacoo mi ñuy wax man ma sëñ lii est-ce ma ne ko lii day jeex Sëñ Tuubaa moo mel noonu wallahi te liñ defoon daaw dugal nañ ko ay yoonu yoonu yoon ndax xam naa ne bu déwénee tamit ñaan na yàlla yàlla suñu borom may ñu fekkwaat ko rek kenn bañ a màng te yàlla may ñu doolay poos tamit daal ngi sant ñëpp di wax waa dëkk bépp daal jërë ngeen def euh, mm-hmm. mm-hmm. bi mm-hmm. de l'édition bi waaw waaw xam nga li tax ñu def mooy li nga wax léegi boole pour boole jeunes yi ñu nekk benn xam ne Mbàkke moom sëñ bi du Mbàkke du pour kenn rek pour ñëpp la ku jàpp ne Mbàkke yow yaa koy doxal ci yow dong yaa ngi nax sa bopp Mbàkke ñëpp fi am wàll te ñëppay manko tamit taxaw liggéey ànd Mbàkke nekk beneen dëkk beneen kar xaram tamit wala si beneen te ñu ngi woo sëñ ñu ngi woo jeunes yëpp nag ci loolu tamit te di gën a santaat sëñ jeunes yi Mbàkke yi ndax man jàpp naa ne man sama bopp ma ma la am ak cant ndax lépp lu ma woot lu kenn duñu si jiitu te képp lépp lu si waay jàpp su ma la bàyyil nga bàyy loolu ak cant la ci man maa ngi leen sant bu baax a a baax si jeunes yi leen ñaan rek lépp képp ku la mën a jàppale ku ne daal man maa ngi ànd yow pour jàppale ci loolu kon nag nañ gën a mànkoo rek di santaat yàlla di ñaanaat suñu borom nag bu doo ne ñu mayaat ñu toogaat fii kenn bañ a manqué di sant sëñ Saliou muy Mbàkke mu baax baax di jël sant bi ci Cheikh sëñ Moussa Fall moom sëñ Baara yàlla xam ne ndogu mosu ko defee àll fii la tey fii la ko mas a defee ndax sama jëmm ji sëñ gaskantom amul ama koo dawee ak jant sëñ Saliou mi ak ñoom sëñ Cheikh Bamba waa ko sëñ Baara yëpp amu seen fay ñëpp dagg seen it ñëw ndax doomu baay dafa neex sa doomu baay xel nga ñëw mais maa ñoom bu ñu nekkee day mel ni ay doomu bàjjan ak doomu kii kii noonu laa mel moom du ma si da nga jàpp ne doomu bàjjan la kee moom amu moom amu lu may wax si moom kee moom ma boo gisee boo gisee boo gisee mën nga gis moom foo ko gisee mën nga gis boo gisee mën nga gis kee moom lu may wax si moom moom benn lañ sama nga baal tamit jeunes yi tamit dañuy di jooytu ci yow. Mhm. Euh, pour maanaam loo xam ne day développer dëkk bi. Mhm. nga àgg ko ci autorité yi. Mhm. tey boo lan lan taxawee ñoom pour am seen di gaaw di gaaw. waaw waaw ñuy bëgg lépp li ñu demandé seen seen seen seen droit la. kon ñoom ñu xamee xam ñoo nekk ñoom ñoo ko ci état bi. ñoom war ñoo gëstu jeunes Mbàkke yi. bu baax a baax a baax te bàyyi par parloo beeg yooyu yooyu amul solo. ñëpp lañ war a yemale ndax képp ku ne Mbàkke la ñor rek a xool ne kii ma landal kii ma landal dama laa déedéet mm-hmm. dañoo war def li muy def nii dañ ñëpp si waroon jàppale action sociale yi muy def nii si si si koor gi nii dañ si war a taxaw jàppale ko ci ndax loolu mooy doxal dëkk bi mais nit ki bu ne yow yaay yow yaay def kenn du def loolu da ngay nax sa bopp fi ñëpp ko boom loolu gërëm ñëpp nag di ñaan nag suñu borom bu dëw ne ñu ñëwaat ñu édition bu gën a mag bii rek dem ba ko yóbbu ci gaar bi tey mën na am nañ yaakaar ne bu doon dina ko yóbbu ci gaar bi jërë ngi jëf sant na leen baax di sant ci waa média bi ni ngeen si jàppee bu baax a baax a baax a baax may yàlla na leen yàlla may seen télé bopp seen seen rajo bopp yàlla mën na yàlla na ko defal di barke Seydina Muhammad di sant jeunes ah, bis bi sax maanaam ni ko waroon woote woote wuñ ko wallahi dooy caaxaan maanaam ku ko dégg rek sa maanaam sa kóllëre rek sëñ gaas indi ak sa kóllëre rek wax la ko waaye sant nañ baax waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf moom sant naa ko baax ku sama xarit la moom yàlla xam ne war na fee waaye dafa da ko fekk màkka di dafa noonu dagg sax umra bi mën na ko déedéet yow demal rek ñu nekkal la fi mu yewal Pa Mass mi wax dëgg yàlla lu ne indi na ko moom tamit ñu koy sant baax a baax di am nañ yaakaar moom tamit si moom baax a baax muy baj président Badiane yàlla na ko yàlla gën a doolee taxawu jërëjëf sunu kilifa sunu sëriñ Cheikh Ahmadoul Moustapha moom mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mamadou Lamine waaye ci kilifteefu nag Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne muy sëriñ Galas Kaltoom ginnaaw bi sëñ bi dafay iftaar bi ba noppi bi mu dogee ba noppi ndaa dem ci yeneen yitte bàyyi fi sëñ Galas fii nu toog wala lii nuy wax sëñ Galas moo ko waroon a wax waaye ni ko sëñ Moustapha joxe ndigal noonu la ñu joxee ndigal man ak sëñ Mamour mii ak sëñ Fallou ñu ànd ñëw ngir yëkkati ay kàddu jëmale ko ci mbooloo mi kon ñoo ngi leen di tuuti suñu fallu mu sëriñ Galas Kaltoum ak mboolem njabootu ak Alaaji Baara gépp waaye nag di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Moudou Fadal mi ngi xam ne di suñu rakk di suñu xarit di suñu lépp yaakaar naa iftaaru jamaa bii mu def ñu koy wax dog boo xam ne maanaam mën nañ ne ñëpp ci boole ñëpp ci daje ni ko sëñ Mamour tuddee léegi rek li ko li li ko wund dafa bari waaye njariñ yi kenn mënu koo lim wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha yaakaar naa kër bu ko fa mag ñëwee ka fa gën a nekk tuut tànk ñëw kër gépp ñëw nañ te Cheikh Modou Moustapha sëñ Mamadou wax na ko léegi fi la jóge léegi ki nga xam ne it moom la Cheikh Modou Lamine mu gis ci leer ñëw na kon mën naa ne kër sëñ Baara ñëpp ñëw nañ muy loo xam ne nag sëñ Galas wax na ko léegi sëñ faa kenn ku nag xam na ne yaakaar naa ren jii du ma ko tuddee sax dogee àll ndax fii mu dogee du àll ndax fa mu kër ga mu jóge ak kër gii mu ñëw ñoo bokk borom lépp ale la sëñ Bara waaye doge fi nga xam ne moom fa la ëpp lu muy nekk yaakaar naa mi ngi koy doog a def ci weer wi lu lu këram donte fii këram la waaw day day day day génn kër nag bu am ñaari bunt rek waaye lépp génn kër gi la loolu nag su amee Euh, lam fi fekk taxu koo jóg waaye kim fi fekk moo ko tax a jóg muy rakkam di xaritam di soppeem di léppam euh, yaakaar naa suñ ngalas olof dafay wax naan diw buñ ne baax na ndax bokk yaa ko wax te ginnaaw man mi yàlla nattoo ma yëkkati kàddu tey ñoo bokk benn wayjur rawatina nag may wax ci turu sunu kilif mu Cheikh Moustapha mu jox ndigal Cheikh Moustapha Fadal Euh, njabootu Cheikh Amadou Lamine gi amuñu ay xaar ma yàlla waaye moom da caa raw yàlla rek tax may wax man mii du jaar sama tur am na tur wu may woowee damay bañ dëgg wax ci presse ak ñi ma koy woowee waaye moroom lañu defante sëñ Moustapha mii dama koy wax booy léeg-léeg mu naan ma grand kon loolu lu yàlla defal Cheikh Amadou Lamine la du ma ne muy sama xarit mais xarit ñëpp la rakkam jii di sëñ Baara it bañ naa ko man du ma jaar ci turam père laa koy wooyee kon loolu lu yàlla defal Cheikh Amadou Lamine la waaye moom mu am jukkoy boppam nag lii muy def muy li tax ñu daje fi tey ku xam way jërëm jigéen xam na ci loolu la mas a nekk ba dem àjjana muy sunu waajur soxna Amina lu mën a am ci àdduna joxe ñam ma ko gënal li ñuy li ñuy néew néew ay at ci ci ab jotaayam donte bu doon fanweeri at fekke nañ ko waaye dégg nañ lu jiitu ñuy juddu ci loolu la nekkoon ba lu waaye gàtt gàtt ab dégg-dégg wala nga gàtt ab xam-xam ci moom xam nga ne ajjuma ju jot dana togg fi ay booli di ko yóbbu tubaa séddale ko ci loxol boppam ñu ba dañuy togg ndab donte lu baax la dem joxe ko dëppaat waaye moom mooy takk ndigam séddale ko ba ba ba mu jeex nga xam ne daanaka mën naa ne takk takkusaan lay ñëwaat ndakke wala léeg timis la fi ñëw kon kooku buñ ne laa moo jur diw mu def lu mel nii loolu wur laa jaaxal jamono ji ñu nekk nag day jamono joo xam ne kenn ku ci nekk yaa ci sa baay nekkoon wala la sa maam newoon am na ku fi wax ne daa judd fekk maamam di way muy way kooku wàcc na kii ne xaalisu mbër lañ ko ngénte kooku muy bëree kooku wàcc na waaye kuñ ne si Amadou Lamine la jur soxna Amina Gueye ñoom ñaar ñoom ñu xam la ci lu mel nii kooku wàcc na kuñ na nag royal sa baay nga bañ la sa baay nekkoon a baaxul kuñ na nag royal sa wajur wu jigéen nga bañ la sa wajur nekkoon a baaxul waaye ku xam ñaar ñi ko seq dama jëlee li si Amadou Lamine waaye sunu waajur wu jigéen wi ko seq xam ko ci yaatal këram gi fii Mbàkke boobu moom mii tuut tànk la dama naan ànd ak sëñ bi di ñëw waaye dafa daan am bool yoo xam ne ña fay añ kenn ku nekk boo ñëwee da sa morom nu mu sant loolu ñun fekke nañ ko soxna Amina daan na def bool yoo xam ne ay ay ay ay ay ñoo xam ne dëkkuñu ci kër ga ñoo ci daan lekk xëy na moom loolu du ko ko wala ginnaaw bi la ko doo ko fàttaliku kon kooku suñ na laa moo meññ ku mel nii muy taxaw taxawaay bu mel nii muy nit ku am social nag ndax ñun xam nañ ci dara te mu nekk nag dëkk boo xam te ni ñi ko yàlla booleel muy Mbàkke ndaw ñi ñu bari dañ leen joxul considération dañ leen jàppee nit ñu baaxut dañ leen jàppee nangam dañ jàppee nangam moom nag gisul loolu mu ñëw nag samp ci biir ndaw ñooñu ñu jàppee ñu baaxut mu ànd ak ñoom guddi ak bëccëg commissaire bi ma sa nekk fii dama fàtte comme doon ma sa maa benn jour ñuy waxtaan safala dañuy waxtaan ba egg ci mënu ma kuy sa waay mën a ko alaaj baar mënu ma kon yàgg sëñ galas mi lu ngeen bokk li may wax nii ëpp na ñaar fukki at jàppatuma ban la waaye mbàkk gi la nekkoon man ne ko bàyyi lañ bokk mu ne moom day dégg naa ko waaye ku jàmbaar la ndax gone yi nga xam ne dañuy tuux ak dañuy naan dañuy def nangam ak nangam yëpp moom moo leen dajalewaat wallahi azim li may wax nii li ëpp na ñaar fukki kon kooku ndawu la ci gis-gis nii waaye jëfi mag lay jëf waaw ku bëgg lu baax la ku ku nangoo sonn ci nit ñi la waaye ku jaxasoog ay bokkam la itam waaw su ma tuddee sëñ Moustapha tudd soxna Mame Bousso mi nga xam ne moo mag ci jigéen ñi maa ngi moom ñoo bi ñu ñëw kon kenn desul ci njabootu El Hadj Baara ñu ñëw nag fekk fi ay xaritam su ma tuddee sëñ Mamour mii tudd naa képp ku sant Mbacke waaye tudd naa képp ku sant Bousso kon kenn manqué wul te te kenn ku ci nekk li li ñuy woo sunu borom jox nañu ko fa sunu kër waaye ji jikkoom ak ak ak melokaanam ak taxawaayam moo tax kenn ku nekk bàyyi la nga jàppoon nga ñëw. kon ñu leen di xamal daal ay bokkam sant nañ ko ay xaritam sant nañ ko waaye ay taalibeem it sant nañ ko loolu mën naa ko wax ci turu mbooloo mépp ndax xam ñoo bokk lépp waaye xam naa lu bari ci lu mu nekk dañoo bokk benn liggéey ci genn wet dama nekk dama jax dama nekk Touba nekk ci ndaw ñi waaye moom ay ndawam ñoo gën a naqari defar samay ndaw ndaw yu mbàkk kenn kon xam ne ñoo gën a naqari defar ndaw yu Touba waaye loolu lépp na mi ngi ci liggéeyal maam liggéey bu am solo waaw liggéey bu am solo ba tax na tey ndaw yi mbàkk am nañu valeur ndaw yu Mbàkke am nañu représentatif mhm. ndaw yu Mbàkke am nañu koo xam ne teg na leen siraatal mustaqim di leen liggéeyal di leen tegu yoon ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa te kat ndaw la ni ñoom waaye fexe na ba fi mu ne ku ci yoroon loolu Baye Ndam Fall di xëcc donc mu mu mu génn saxaar boo ko séenee da koy denc war ma jooju ñëpp jox nañ ko te kon nag loolu jikkoom te loolu li ko ko may nag mooy lépp loo ko gën a bëgg lu dul sëñ mu bàyyi la ko sëñ galas lu ko nit gën a bëgg lu dul Sëñ Tuubaa mu bàyyi la ko suñ Tuubaa daal la mu da bàyyee kenn waaye leneen loo mën a yor muy alal ba ci mën mii wallahi ansi keneen ak keneen keneen bu yoree dara boo ko waxee bu dee montre boo ne ko sa montre bi rafet na mu tekki jox la bu dee nangam boo ne ko mu tekki jox la nit nag bu demee ba alal di jàpp ne moom mooy mooy mooy doxal àdduna soo ko xoolee bët bu rafet dong mu bàyyi la nit ku baax ñu noonu kon nag nañ ko ñaanal yàlla suñu borom gën koo taxaw bu baax sàmm ko ba yoon wii mu mu jaar suñu borom defal ko ci tawféex te te rafet nañ ci njort bu baax a baax na li may wax nag ci turu njabootu sëñ Bara gépp laa koy wax waaye ci turu xaritam yëpp ci turu nag rawatina taalibe mi waaye rawatina jeunesse Mbàkke jeunesse Mbàkke daal am ngeen koo xam ne bu leen ne woon fekkuma fi sëñ Touba nangam raw na ma bu leen ne woon fekkuma fi Mamour Diarra rang nangam raw na ma ab sëtama ngi nii bokk ci li sët yi sëñ Touba doon ñaan ne maa ngi ñaan sët yoo xam ne saa su nekk dañ fi nekk di dundal sunu si yonent bi alayhi salaatu salaam kon kooku mu ngi nii ba bañ na ko ba kër gi boo fi dugg li ngay dëkk gis mooy fi ñuy jaamoo yàlla te àdduna nag pàkk bu faay am te boole wati fi ñuy jaamoo yàlla yaa ngi nax sa bopp bari na ñoo xam ne danañu faatu ñu dugal leen ci jàkk fanaan na leen ba bët set di leen móolu naan génnal génnal fii ndax yow miinuma la kon nag boo duggee ci këram fekk fi eh, yàlla boo xam ne bala nga koo teg bët moom ñaare moom da nga ko gis kon kooku ku jàmm yàlla ñor la kon nag eh, nañ ko ñaanal yàlla sunu borom gën koo sàmm bu baax ngeen xam ne daal bu leen ne bu fi sëñ bi nekkoon nangam moo xam Seexul Xadim la wala Mamour Diarra ab sëtam mu ngi nii boo xam ne saa ku topp ci moom dana la wommat teg la ci yoon wi nga xam ne boo ëllëgee boo gisee ak Serigne Touba doo am lenn lu na naqari kat yi daal mu gudd mu gàtt mooy sant sant nañ ñëpp bàyyi wunu kenn ñi ñëw ak ñi ñëwul rawatina yéen ñi nga xam te ne yéen ay tasaare xibaar yi ba ñi ko fekkewut man koo gis man cee am tuyaaba ji ndax fii waxuma la ñi fi ñëw wala ku amoon yéene ñëw waaye ku ko seetaan nga teewlu ko ba mu jeex rek sunu borom dana la bindal tiyaaba ju mel nii. ni ko sëñ Mamadou waxee rek nit bu wooree ba ngoon nga jox ko lu mu dogee moom day am tiyaaba ju toll ne ja yow it doo ñàkk tiyaaba eh, jooju ndax li loolu li koy firndal mooy kenn ku ci nekk ci ñun ñii rek am na benn vidéo bu nekk ci sa téléphone boo ko envoyé nii ndax da nga ñàkk vidéo ba doo ko ñàkk kon kay buñ na laa da am tiyaaba ju toll ne tiyaaba jëm am war nga neex naa gëm ginnaaw tubaab bi def na loo xam mën nga ko envoyé 1000 personnes te du tee ko am waaw bu sa vidéo nekkee 5 minutes yow ki nga ko envoyé du am 6 minutes mukk mbaa mu am 4 minutes yéen ñëpp yéen a toll ay minutes ci misaalum àdduna rek kon lu baax dañ koo war a tasaare kon lu baax dañ ko war a jamu ba àdduna yëpp teg seen bët te nag lii lañ wan a war a wane jamono dafa toll foo xam ne léegi maanaam nit dañ koy xam téeméeri at wala ay at yu bari ci lu baax benn bis rek sunu borom natt ko mu juum ñu ne diw de bett na ma diw de nangam diw nangam daal di bëgg nëbbu nag lu baax la mu nekkoon lépp te loolu lu koy waral loolu jëfi seytaane la kon nanu góorgóorlu ci jàmm yàlla waaye nag jaar ci yoon wi nga xam ne moom lañu Sëriñ Tuubaa xalal ngir bu ëllëgee suñu dajee ak moom ñu bañ ko ñu bañ ko ñu bañam lu ñu metti ñoo ngi sant ñëpp bu baax nag di wëlbati ko nag di sant koo xam ne sëñ bi tudd na ko léegi waaye jëf bu am nu mu toll faaw kon sant gi a yaatu muy président Badiane yàlla gis naa ni mu jàppee sëñ bi waaye rawatina bis bi tamit suñu ko tuddee nag mën nañ tudd nañ ku ci jàpp ak amoon yéene ndax nit bu dee def te wax taxut muy def suñ ko waxut wurta am lu ko naqari kon kuñ tudd wuru ndax tudd la taxutoon ngay def waaw lu tax ñuy tudd kayit mooy moom lañu ñu féetale bis bi ci ne ko ci ne àddina baaxoo sëñ bi wax na ko léegi da ko fekk Makka waaye amoon na yéene ñëw waaye xelam ak jëfam lépp ñëw na te loolu mooy li am solo kon président ñu ngi lay ñaanal bu baax sa tur wi nga xam ne euh, yaatu na léegi ci jamono nag waaye wuute na ndax président yi daa bëri léegi moom ku yor ñaari nit sax na may président nangam waaye nag ñu ngi lay ñaanal suñu borom li ngay mébét yàlla jàppale la ci ci ci barkeeb bis bii nag waaw fii nga xam ne sa sa jëf dugg na ci lépp dugg na ci daal ñu ngi ñaan bu déwénee euh, na nga gën a yokk te nga gën a kawe ci barke Seex Xadim kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu Cheikh Moudou Moustapha ak njabootu Cheikh Moudou Lamine Bara waaye rawatina nag soxna si Mbàkke sëñ moom xam maa ne soxna si Mbàkke ñor na ko ndax mi ngi koy baamu rek waaw kon nag soxna si Mbàkke noonu lañ la mën a tuddee nag waaye ndaw amatul fii ne gis nga ki ngay jàppe ki ngay jàppe ndaw borom mas'uliyya la borom responsabilité la waaw dafa am kilifa gune ne mag ak màggat ñoo am mais ndaw amatul mag ak màggat waaye gone amatul waaw man soit disons nag gone parce que Sénégal da am 45 ans nga am naan ñun jeunes yi waxin la waaye ndaw amatul koo gis fii mu yorub Jakarta wala mu wala mu yor leneen lu muy liggéey xamal ne am na ñu mbàyyi ca kër ga ñoo xam ne moom la ñuy xaar hmm. kon ko ku am responsabilité la loolu nag la ciy jiitu mooy nga xam sa bopp parce que nit du gëm boppam mais nit day xam boppam boo xamee sa bopp rek xam li nga doon xam li ngay peese xam fi nga jëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi dana